ci Source euh, A lu mu xëya tey euh, xëya na hommage à l'ancien secrétaire euh, de l'ANPEJ maire de Kër Madiambal Madiabel par Mamadou Lamine Dia ex-DG de l'ANAPEJ defe naa ni journal bi ñëw na ci waaye itam Serigne Source A tey dafa gën a teg li nga xamante ni mooy euh, suñu émission démb bi daal di koy faram-fàccee ndax journal bi mi ginnaaw moom mi nga xamante ni moom mooy Djibril Sakho di secrétaire général fédération urbain de Saint-Louis bu parti démocratique sénégalais Ah, moom euh, wax dëgg yàlla démb dañu waxtaan waxtaan bu yaatu bu jëm ci li nga xamante ni moom mooy gestation parti bi waaye gis nañu ni alliance wàllu Pastef mi ngi daal di taxaw alliance wàllu Pastef mi ngi daal di taxaw Djibril Sakho nag moom ñëw na ci bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo di Karim Meïssa moom mooy jiite li nga xamante ne mooy tête de liste wala boog mooy jiite li nga xamante ne mooy liste parti démocratique sénégalais ci fekkente ni def nañu li nga xamante ne mooy ay élection législative évidemment bu fekkente ni euh, Karim Wade nee na ak Diomaye ñi ngi déggante téléphone souvent nee na nag euh, bu fekkente ni loolu am na diggante Diomaye ak Karim Wade c'est sûr que moom mi nga xam ne mooy jëwriñ ji njëkk nekk tamit président parti euh, euh, Pastef muy Ousmane Sonko naturellement moom itam am na lu mu ci yëg te am na lu mu ci xam waaye itam moom journal bi mi nga ko tuddee confession dingue ay mbir yu dof la ko jàppee yoo xamante ne am na ci aéroport international Blaise Diagne moom Serigne mi ngi wax ni bi ñu bëggee nga xamante ne projet ak ñaar la ñu teg yoo xamante ni 700 milliards moom moo waroon a génn ci koppar waaye ci diggante ñaari at moom na euh, Djibril Sakho mi ngi koy wax ci journal bi ne benn projet gisuñu ko ci 700 milliards yooyu amul benn projet bu ñu gis nee na li ñu mën a jàpp muy premier rek moom mooy kaawu ANACIM nga xam ne ANACIM dafa waroon am siège am biir AIBD ñu génnee koppar lu tolloog 1 milliard ba léegi nee na benn birig sax gisuñu ñu tabax ko fa nee na itam dañoo waroon a delloo xaalis euh, lu toll ci 296 milliards jëm ci ay financement AIBD yoo xam ne dañ ko bëggoon a réaliser ay chantier Euh, euh, travaux yooyu euh, nekk ci 34 pour cent des travaux rek la ñu def 34 pour cent des travaux ci 700 milliards yi waaye nag nee na am na yenn ci ay partenaires yoo xamante ni AIBD dafa jël ay BD yóbbu ko en justice ñenn ñi gañe nañu te dañoo war a bénéficier domage ak intérêt à force d'attendre nag compte ay BD yi peut-être day bloqué loole moom mi nga xamante ni moom moo di euh, Djibril Sakho wax na ko fi démb entre autres yoo xamante ni démb bu ngeen duggee ci émission démb bi incha allah di ngeen ko daal di mën a euh, jàngat bu baax parce que am na ay révélation yu important yoo xamante ni def na ko jëm ci euh, li nga xamante ni mooy ay BD waaye jëm ci li nga xamante ni moom mooy taxawaayu wallu surtout euh, parti démocratique sénégalais ñëwum Karim Wade ak li nga xamante ni moom mooy yenn dàq yi nga xam ne seetlu nañ ko ci rajeunissement du parti euh, Tata Waré Sarr moom confirmé nañu ni ay kàddu la woon nii rek mais génnul parce que amul benn notification bu parti bi jot këyit buy wane ni moom démissionné na entre autres donc bu ngeen duggee ci biir euh, journal bi aussi di ngeen ko liir waaye bu ngeen duggee ci suñu émission démb bi incha allah tam di ngeen ci gën am lu leer muy waxtaan bu am solo ñu séq ak moom mii nekk secrétaire général syndicat bu euh, euh, euh, AIBD ESPA mu ngi noonu donc ñu bàyyi si xel bu baax a baax journée concertation sur la régulation commune électronique les promesses fortes du DG de la l'ARTP Tahirou Thiam noonu la de Tahirou Dahirou Thiam mu ngi noonu Dahirou Thiam voilà maa ngi koy gën a seen fële donc mu ngi noonu loolu la journal bi xëy tey Seynabou na ko jàngate waaw peut-être ñu commencer ak euh, le première une bi wàllu Pastef en gestation ndax bu ñuy fàttali ko li en fait li lii du doon loo xamante ni lu bees la gisoon nañ ci législative yi mujj yi wàllu ak Pastef dañ defoon euh, benn coalition moo la grande coalition wa. législative hmm? waaw yeewi la woon yeewu la woon ak wallu mooy moo doon la grande coalition mais xam comme Pastef c'était dans dans yeewi léegi yeewi existé tout loolu moo tax peut-être cette fois-ci ñu def ko Pastef rek mhm. mais c'est pas une première jotoon nañ def benn coalition entre ñoom ci ay élections législatives mhm. comme bu ñëwaatee cette ni dañ koy defaat peut-être du xaw a jaaxal ñëpp mhm. te surtout que instant bi ñëpp xam nañ ni élection moom ce sera très difficile nga daal si dem euh, sans sans une coalition surtout ak euh, configuration instant bi ni mu demee nii mooy mooy loolu. Mm-hmm. Euh, c'est c'est tout à fait normal. Mm-hmm. donc nekk na loo xamante ni nit ñi ñu ngi koy xaar peut-être ñu daal di yaakaaraat rek nii du nekkaat ay genre guerre de positionnement yi nga xamante ne la fois passée xaw na indi benn jàqare entre waa yeew Yewwi ci période boobu noonu ak waa Wallu ndax dañ dem ba yegg si waa Wallu ñu daal ni leen ñoom ñëpp xam nañ leen si am seen groupe parlementaire tout le temps dañ koy am donc pour rien au monde ñoom duñ daal di dem di plier wu devant keneen di nekk di ranger wu si ginnaaw keneen il faut ñoom am seen kii ba mu xawoon indi quelque jiixi jaaxa seen seen seen i côté ñoom ñaar. Mhm. en tout cas daal de toute façon pas. on attend de voir loo xamante ni ñoom ñoo ko wax instant bii nii la ñu ngi toog di xaar xëy na fii ak boobu dinañ si am lu lu leer. Mm-hmm. bu ko weesoo les révélations de de de Djibril. Mm-hmm. sincèrement Djibril aussi euh, AIBD instant bii nii. récemment seetlu nañu bëri nañ ay problèmes yu fa nekkoon bari na ay révélation yu fa génn bari na ay euh, euh, ay scandale yoo xamante ni amoon na fa te récemment seetlu nañ ni ñu bëri ñi ngi génn ku nekk yaa ngi wax li nga xamante ni moo fa moo fa moo fa am mais pa espéré ko ñoom tamit seen kii bi rek euh, audit bi nga xamante ni lancé nañ ko. Mm-hmm. dina permettre ñu am ay solution en fait euh, xam exactement qui sont les responsables identifie les responsables et prendre des mesures par rapport à ça ndax lii sincèrement parlé c'est irrecevable en fait c'est au mm-hmm. niveau de de de l'AIBD. E mm-hmm. ñu am yenn problème yu demee nii nii nii dem ba génnee xaalis alors que les travaux n'ont pas commencé deux ans après ça vraiment c'est autre chose espérons les autorités vont trouver des solutions par rapport à cette situation là. 700 milliards ëpp na. ñaari at gisuñu birig ANACIM moom 1 milliard lañ ko génneel mu war fa def siège am. benn birig bu ndaw sax benn birig bu ndaw sax euh, euh, euh, nemmeeku wuñ fa. entre autres après nga toog même pas pose première pierre. amul pose première pierre benn birig nee na benn birig sax amu fa entre autres mais également def na focus ci Cheikh Tidiane Dièye peut-être que journal bi dina si ñëwaat peut-être demain ou mais def na ay ay. non ay ay wax yu yu yu xam nga syndicat moom euh, sëriñ mm-hmm. ñoom duñu xalamal kenn moom loolu la wax duñu neexal kenn mais d'après lu ñu gisee Cheikh Tidiane Dièye il en veut il est en phase ak ñoom y a des projets yu yu taxaw mais également taxaw na pour rectifier wala boobu defar lu bari loo xamante ni ah, yàqu na Cheikh Bamba Dièye plutôt defar pour defaraat ko biir aéroport naka nga jàngatee la une de source à sëriñ waaw sun su une bu am solo comme li ngay faral di wax rek gars yi moom ñoo ne ca kanam waaw toujours différence bi danga koy gis source A bari na sax léeg-léeg nga toog si ay kii ñu ne la source A fësal na nangam vraiment muy liggéey bu am solo liggéey bu extraordinaire donc nag li gën a fës mooy euh, coalition alliance bi ñu wax ni euh, mhm. boo moytul mën na taxaw muy wàllu Pastef ma jàpp ni même bu taxawee dina nekk une alliance euh, contre une alliance de contre nature mm. ba pare day conjoncturelle alliance contre nature mooy alliance boo xamante ni ñu ko bokk bokkuñu ay idéologie politique parce que ku ne xam ne ni Pastef ak waa PDS bokkuñu ay idéologie politique parce que boo xoolee PDS ñoom la libéralisme la ñu incarné te libéralisme boo xoolee dañu am ay seen ay principes ak ay valeurs yoo xamante ni moom la doxee mm. mais c'est en contradiction ak li nga xamante ni que Pastef philosophiquement parlant moom la moom noonu lay doxee en termes politiques mm. mais cela veut dire tout simplement que maintenant. noonu noonu la ñuy demee assemblée nationale. noonu la ñuy demee si si si législative. si bi maanaam dañuy waaw dañuy. tam comme ni ñu defoon rek léegi alliance boobu mooy alliance. Euh, alliance contre alliance contre nature mais day conjoncturel lu tax mu conjoncturel mooy contexte bi jamono bi ñu toll parce que si contexte bi ñu toll quoi que l'on puisse dire nouvelle autorité yi soxla nañ une majorité confortable pour mën a dem assemblée nationale mën a décliner comme na mu leen neexee convenablement la nga xamante ni moom lañ bëgg a jëmal pour pour pour réew mi PDS également boo xoolee en réalité aussi PDS mën nañu wax ni c'est c'est c'est un en perte de vitesse parce que quoi que l'on puisse dire bu njëkk ba ak PDS bi ñëpp xam nañ ni PDS pratiquement la fa des bareetul. tout récemment gis nañ ay démission yu bare bari même si c'est pas encore officiel am na ñoo xam déclaré nañ ci tele ni bàyyi nañ te ay ténor lañ yoo xamante ni aujourd'hui ñëpp du du dootuñu naatable Euh, doole ak cër ba nga xamante ni amoon nañ ko si biir PDS te lu ci bëree bëri nag tey ka nga xamante ni moom lañ fas yéene def tête de liste parti bi muy Karim wadd moom moo tey créé euh, euh, mécontentement bi am tey ci yenn responsable yi nga xamante ni gis nañ seen bopp ba daal di génn donc kon jàpp naa ne aujourd'hui mooy li ma wax am na lu ko laaj te boo xoolee ñi nga xamante ni tey ñoo incarné pouvoir bi y a des menaces quoi que l'on puisse dire yuy jóge si coalition Benno Bokk Yaakaar yu dal si ñoom yàggul dara déggoon nga fi ñu ni boo moytul daañ leen daañ def euh, euh, motion de censure contre euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk donc ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni moo tax tey régime bi toll na si moment bu nga xamante ni soxla na automatiquement mën a dem assemblée nationale mais bu fay dem am une majorité boo xamante ni dina ko rassurer par rapport ak déclaration de politique générale bi nga xamante ni boobu ba léegi ñu ngi si di waxtaanee ma jàpp ni loolu mooy li nga xamante ni en réalité moo gën a sabab seen seen seen collaboration. PDS nag wax nañ ko jàpp naa ni du parti boo xamante ni des fois maintenant dafay opposer régime bi fi nekk. Mhm. parce que bu ñu demee ba nar a def une alliance dem assemblé nationale mooy ñoom moom dootuñu opposé wu. voilà kon donc dafay taxaw taxaw nee na taxawuñu taxawaayu opposant waaw wax nañ ko kon parce que bu ñu taxawee taxawaayu opposant du ñu def lii ñu def nii moo tax ma ni jeex na te wane seen bopp bu baax waaw instant bi taxawuñu taxawaayu moo tax ma ni seen taxawu taxawaayu opposant moom jeex na moom mm-hmm. finalement comme ñu ngi bëgg a mettre en place une alliance mm-hmm. kon cela veut dire que mënatuñ ko considérer comme un parti buy nekk dans l'opposition di ko assumer mm-hmm. véritablement donc beneen bi mooy le cas de Djibril Djibril responsable syndical la li mu wax nii mën nañ ko gëm parce que il est au cœur de l'affaire quand même quoi que l'on puisse dire avec des révélations fracassantes quand même li mu wax dafa dafa dafa extraordinaire tey bu nekk bu fekkee ni nee nañ douze euh, douze euh, mille douze projets yoo xamante ni pour la plupart xa am na koppar goo xamante ni jot na génn ba dem na ci ña nga xamante ni aujourd'hui ñoom ñoo gagné woon marché ba mm. ci yenn entreprise yi mais Foras daani xëddeem gisuñu benn brique bu ñu fa teg loolu dafa doy waar. 700 milliards voilà 700 milliards. Mm. wax nga ko léegi sànq par rapport ak ANACIM chaise mm-hmm. bu mu fa waroon a am ba déjà débloqué woon nañu un milliard un milliard yoo xamante ni déjà débloqué nañ ko te gisuñu fa dara mm. ci ci ci nga xamante ni ca site ba site ba te lañ mujjee révélé sax mooy mm. Cheikh Bamba Dieye ba mu ñëwee waa ka gañe woon marché bi pour def travaux yeeg yooyu ba Cheikh Bamba Dieye ñëwee si la bëgg di wane wu pour mën nii mu ngay def liggéey ba moo tax gars yi arrêté ko ne ko pourquoi deux ans toog nga deux ans commencé woo dara bàyyi ba nouveau directeur ñëw nga bëgg tricher loolu tax Cheikh Bamba Dieye def une alerte par rapport à à, à cette situation là wax na ay problème de surfacturation recrutement sauvage yi nga xamante ni moo fa am ak euh, code yi nga xamante compte yi nga xamante ni bloqué nañ ko mais nag loolu yëpp mauvaise gestion moo ko indi te mauvaise gestion boobu tudd nañ ci Doudou Ka ak ka nga xamante ni mooy Abdoulaye Dieye mhm. kon daal jàpp naa ni boîte la boo xamante aujourd'hui mi ngi en crise mi ngi en difficulté mhm. ba tax na tey la nga xamante ni tey moom la euh, euh, AIDB doon débloqué tey jural na ko tey ay ay ay procès ñoo xamante ni tey porte porte nañ ko planté yóbbu nañ ko ci ci ci ci yoon ci kanamu yoon mhm. kon jàpp daal ne boîte la bu ñu war a euh, relever waat donc le plus rapidement possible comme président de la République aussi dépêché woon na ay organes de pour ñu def audit donc ka cay responsable aussi ñu situé ko la ñu war a yóbbu si yoon itam ñu yóbbu ko si yoon pour gën na itam euh, euh, fësal ñi nga xamante ne ñoom ñooy recrutement massif yi nga xamante ne am na ko am na ko fa euh, am na ñoo xamante ni CDI la ñu am peut-être mën nañ def départ volontaire wala yu demee noonu ñi nga xamante ni CDD la ñu am peut-être que directeur bu bees bi mën na leen bañ a reconduire et cetera et mais quoi qu'il en soit wàññi personnel moom moom seen tam na ne xëy na dina am fa nga xamante moom moom mooy AIBD mu ngi noonu donc loolu la journal bu mag bi xëy xëyee tey